asalaamaaleykum sama gars ñu ngi leen di ziare bu baax baax fii ci Rewmi Sport altine le 22 juillet 2024 ñu ci revue de presse yi bu fekkee ne abonné go ñu ngi sàkku nga abonné partagé lii di vidéo bi activé cloche de notification pour que vidéo yu dugal nga bokk si ñu koy jëkk gis fii ci Rewmi Sport revue de presse di ci ànd ak Serigne Cheikh Aliou Mbacké borom fas gi li def ci nit bëri na fas gi tamit bokk na ci li muy saafara mooy néew kattan yan leeral ngay fas gi xam nga dégg néew kattan boo xoolee ci senegal mën ngaa gis fukki nit ak juróom wala ñatt téeméeri nit ak nangam ñoo xam ne ñëpp ñu ngi toog ku ne di wax néew kàttan mm-hmm. man néew kàttan ñaari cabinet laa ci yor mm-hmm. ñu bari nag dañ may woo ne ma yow la sëñ Cheikh Al Amine Mbacke am yu ñuy leeral waaye fii laa ciy leeral àdduna bépp dégg mm-hmm. néew kàttan ñaar laa ci yor bi ci njëkk mooy fas gi nga xam ne fasug néew kàttan la di fasug ndono amul kenn ku mos a ñëw ne Al Amine jox na ma fas gi te taqaliku ma néew kàttan li ma defar ci kër ëpp na lu mu néew néew mën na mën na junni kër. ñoo xam ne fas gi moo tax kër ga am jàmm. la ma defar ci sëyit fas gee tax. kon nag beneen bi bi ma ci yoraat mooy cabinet Xelcom kattan. xel Xelcom kattan xeetu attaaya la booy jëfandikoo ndax loolu li tax ñu sabab ko ñu ñu defar ko la ko sabab ki nga xam ne yàlla dogal na ne maanaam fonkut ay téere wala yu mel noonu. waaye bi ci gën a wér ba gën ci wér bi nga xam ne moom du ñëpp ci mën a jot. waaw du ñëpp ci mën a jot waaye mi ngi nii képp ku ci jot néew kàttan da nga tàkkoog moom ak at yoo mën a am te dootu la dal ba faw man sëñ Cheikh Al Amine képp maa koy joxe ku ne nag mën ngaa gis mu yoruk fas di wax waaye sëriñ Cheikh Al Amine jox na ma fas tàqoo maag néew kàttan ba ëttuday tukki doo ko dégg fas gi daal jàpp nga daal moo gën ci néew kàttan ni ki day takk rek di sëy at yoo mën a am moo xam sa awara day nooy di lax di dellu ngay gaaw a yegg santiroo sa bopp effet bi gàtt. bu soobee yàlla boo ko takkee lu mu néew néew néew néew. ñaari waxtu mën nga kaa sëy. ñaari waxtu. mën nga kaa sëy lu mu néew néew néew te mi nga aju ci yow nag. revue de presse dañ koy commencé fii ci Sénégal njëkk ak journal bi di la Dakar waa dikk na ci combat bi nga xam ne moo amoon démb ci dibéer bi foofu ci arène nationale diggante Balla Gaye 2. ak euh, ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Tapha Tine donc Balla Gaye euh, sans picc euh, sur le chien de Bawal donc ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Balla Gaye comme ni mu ko defee woon en 2013 la tolloo woon ak juin donc démb ci le 21 juillet bi Balla Gaye 2 tollante na li donc 2-0 pour le lion du Guédiawaye kon ki nga xamante si ni moom mooy Balla Gaye 2 moom mooy le premier empereur du donc lutte sénégalais moom ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Balla Gaye Gueye kon baa Gueye de enregistré na li nga xamante ni moom mooy lii di vingt troisième victoire am après euh, vingt neuf combats yi nga xam ne jot na ko bëree. après la Dakar waa donc dañuy continuer fii ci Sénégal ba tey soxnaal bi di record mi ni xamal ne Krépin Diatta et Jacobs donc vivement attendu ki nga xam ne moom mooy Krépin jaat xam ngeen ne moo ko Jakobs euh, ñi match yu mujj yi nga xam ne Sénégal moom la mujjee am ci qualification Coupe d'Afrique des Nations 2025 yu ci bëree bëri def ko dañ ko tardé ñoom ñaari latéraux yi Euh, léegi nag am na ay match qualification yu war a njëkkaat ci weerub septembre donc record di ñu xamal ne ñoom li ñu leen xaarandi bu baax a baax parce que lu waay mën di wax manqué woon nañ ci équipe bi donc am Krépin Diatta ci côté droite bi Jakobs ci côté gauche bi vraiment moom moo gën ci équipe nationale bu Sénégal kon mois de septembre xëy na ñoom ñaar dina dajeek ñu nekk ci forme commencé donc avec ki nga xam ne moom la ñu tuddee AS Monaco donc pour. dimbali Sénégal parce Sénégal tamit euh, ñaari match mi mujj ci côté qualification coupe d'Afrique bi aussi defu ci loo xamante ne nii lu am solo la donte moo dóor benn bi moo niil benn bi. dañuy bàyyi ko donc foofu ci record jubali fële ca stade bu yéen kaay euh, donc 109 pour oublier kii di Kylian mbappe maanaam daal ki nga xam ne moom mooy Paris Saint-Germain dafa bëgg a recruter ab joueur bu mag. bu ko defee mën a fàtte kii di Kylian Mbappé malgré que waaye Luis Enrique waxoon na ko ba Mbappé di dog di dem euh, mënul nekk remplacer Mbappé au PSG parce que ku mel ne Mbappé nga amaat ko Paris loolu du yomb waaye nag stade bu yéene kaay comme ni mu ko xamle ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Victor Osimhen donc di ballon d'or africaine donc moom la équipe bii di Paris Saint-Germain bëgg a jënd pour daal di jéem a fàtte ki nga xam ne moom mooy Kylian Mbappé kon stade bi kay xamal nañu ne accord am na diggante ki nga xam ne moom mooy Paris ak joueur bi waaye nag Paris amagul benn waxtaan ak club ba mu nekk di Napoli. dañuy bàyyikoo donc fii ci Sénégal la jubali fële ca Angleterre fekk fa Mirosport dikk na ci kii di Donnarumma di gardien bi but bi nga xam ne ma nga ca Paris Saint-Germain journalu anglais bi mi ngi nii xibaar ne bu fekkee ne kii di Ederson ma nga xamante si nii ña ngi ko soxla fële ci Arabie Saoudite club bu ci demee ne Al Ittihad bu fekkee ne Ederson dem na gardien bi but bi nga xam ne moom la Pep Guardiola bëgg a indi. indi ko ci watu kii di euh, Stéphane Ortega moom la ñuy tuddee Donnarumma Donnarumma mi nga xamante si nii parfois Luis Enrique day am ay jeexi jaaxa ci moom ba xam est-ce que mën na doon gardien numéro un bu waaw war a téet Mirror Sport di xamal ne kii nekkul ab gardien bu tuuti ndaxte bu ñu fàttali ko ci atum 2020 bu fekkee ne euh, Europe bi Italie gagné na ko moom mi joué bu rëy kon ci gàttal Mirror Sport nee na bu fekkee ne Ederson dem na Pep Guardiola ki mu njëkk xalaat mooy Donnarumma après donc record dañuy jubali fële ci capitalu Espagne di Madrid fekk fa soxnaal bi di Marca eh, kii di eh, Karim Benzema donc eh, di Ballon d'Or di dikk na donc ci équipe bu Real Madrid bi mu gis nee na lii mu gis ni gën na ko gis ci équipe bu Real Madrid vraiment ci talent yi nga xam ne ñoom ñoo daje ci équipe bi beneen bi moom kii kii di Karim Benzema nee na pour moom li nga xam ne moom la ñuy tuddee Ballon d'Or bi buñ ko jox keneen ku dul Vinicius Junior pas sax lim def ci année bii nii mais buñ boolee lim def ci année bii nii ak lim def ci année bi la ñu weesu daanaka pendant trois années ngi nii ki nga xam ne moom la ñu tuddee Vinicius Junior mérito na li nga xam ne moom mooy Ballon d'Or léegi nag moom boo ko bàyyi woon sax moom kese mën naa gagné ab équipe bu fekkee ne Real Madrid soxla na ko kon euh, pour man Ballon d'Or 2024 bi Vinicius moo ko euh, mérito ni ci journal boobu donc di waa Marca dikkee journal bi nga xam ne moom la ñu tuddee waa AS tamit noonu la ci dikkee mi ngi xamal ne Ballon d'Or bi nga xamante si nii kacce yi favorite mooy mooy kii di Vinicius Senior après sax bi nga xamante si nii kii di euh, Bellingham dafa perte final bi euro bi et aussi tamit taxul mu daal di feeñ trop def ay match yoo xamante si nii ay match yu exceptionnel la moom Bellingham pendant euro bi de même que Vinicius Senior mais parfois CONF Ligue de Champions moom moo lay poussé pour que daal nga mën a gagné lii di Ligue des champions boo tëjul sa compétition ba tax na li nga xam ne moom mooy les cent premières maanaam daal téeméer yi nga xam ne ñoom ñoo jiitu ci ballon d'or bi dafa mel ne ñi ko occupé moom mooy joueurs yi football Real Madrid ak yenn joueurs yi football ci équipe nationale bu euh, Espagne comme ku si demee ne Rodri bi gagné meilleur joueur euro ak kii nga xam ne moom la ñu tuddee euh, Lamine Yamal bi gagné meilleur jeune joueur kon euh, les Espagnols et les joueurs du Real Madrid te ñoo dëbëne ballon d'or bi. ki nga xam ne moom la ñuy tuddee sport mi tu wax ne ko Williams donc Euh, est très proche wala boog immédiat euh, euh, rejoindre Barcelone immédiatement donc ki nga xamante ni moom la ñu tuddee sport nee na kii di Nico Williams ay mbiram mi ngi jege si FC Barcelone li mu bëgg mooy ci biir semaine bii nii mu trouvé accord ak ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Nico Williams parce que FC Barcelone xam na ne li gën a jafe ci mbiru Nico Williams c'est pas donc payer li nga xam ne moom mooy prix bi nga xam ne moom lay jar no mais plutôt fexe ba. daal di euh, juboo ak li nga xam ne moom mooy joueur bi léegi après premier rencontre bi nga xam ne am na euh, keroog ko diggante agent bi ak Deco Barcelone mi ngi préparé yeneen waxtaan ak kii di Nico Williams waxtaan yooyu noonu FC Barcelone yaakaar na ne war na cee mën a juboo ak kii di Nico Williams. après donc journal boobu di euh, sport Mundo Deportivo ci la ñuy wax nekk foofu ci Barcelone ba tey moom dikk na ci kii di Hansi Flick mu ne. Euh, semaine donc de décision maanaam semaine bii nii semaine bu décisif la pour Barcelone ak Mercatom semaine bii nii Barcelone dina ci jël ay dogal yu bëri yu bëri parce que daanaka ci semaine bii la FC Barcelone pare donc pour def li tuddee voyage en Amérique donc dem fële ci États-Unis pour préparer pré-saison bi donc FC Barcelone bëgg na ci biir semaine bi nii yenn ci ay joueurs yi nga xamante ne nii kii di Hansi Flick su compte ñoom. dèjà mu wax leen ko ñu bañ a ànd ak kii di Ancelotti ci tukki ci biir semaine bii nii ci la FC Barcelone bëgg a trouver accord ak kii di Nico Williams ci biir semaine bii nii ci la Barcelone bëgg a accord ak yenn ci sponsor yi nga xam ne ñoo koy permettre donc mu mën a dugg ci mercato bi dëgg-dëgg moo tax mu ne semaine bii nii semaine la boo xamante si nii Barcelone ci lay jël ay décision yu mag après donc foofu ci Mendo Deportivo dañuy jubali fële ci la Gazzetta dello Sport équipe bi nga xam ne moom la ñuy tuddee ancien Milan ak nga xam ne moom la ñuy tuddee Juventus Dakar caaxaanuñu fi ñu toll nii nag ku nekk ma ngay jënd ab défenseur euh, central ki nga xam ne moom la ñuy tuddee ancien Milan moom ma nga dem ba fële ca euh, Autriche ci club bu ñuy tuddee Salzbourg fekk fa ku ñu tuddee Pavlovic euh, moom lay waaj a jënd kii di Juve dem ca Italie dem ca France fekk fa ku ñuy tuddee Todibo nekk ca Nice moom lay waaj a jënd kon li muy wane mooy Zlatan Ibrahimovic ak kii di Thiago Motta ñëpp di ay anciens joueurs yoo xam ne yàgg nañoo jouer ci championnat bu Italie donc pare xañ équipe bi nga xam ne moom la ñu tuddee Inter de Milan lu jëm ci wàllu euh, lii di championnat bu Italie kon championnat bi du nekk loo xam ne lu yomb lay doon championnat bi du yomb waaye tamit Juve jaay ay joueur du yomb ci moom balaa ñuy ñëw ci joueurs yi nga xam ne Juve da leen a bëgg a jaay te mu ko dañuy ñëw donc euh, ci chaîne bi di Rewmi Sport gaa ñi continuer leen abone partager lii di vidéo bi c'est important lu jëm ci wàllu chaîne bi Juve dafa bëgg a yóbbu ay indésirables maanaam ñi nga xam ne moom soxlawu leen mais dafa xaw a jafe ci moom parce que bu fekkee ne Dayane Ethan défenseur la bu baax pour jaay ko jëfewul mais le problème mooy jour bi ci boppam nee na Paris la bëgg te Paris actuellement defagul offre te a jaayee te am na ay club yu ko soxla Bundesliga mais moom nee na la bëgg beneen bi mooy Szczęsny moom li muy fayee ko mu bëri da dem na ba mais juboo amul nii donc moom ki nga xam ne moom la ñu tuddee Disilio aussi moom mi nga xamante ne Juve bu gën kaa génne mu tëgg Mathieu Soulé peut ko jafewul mais daa bëgg a génne ñetti ñii nii donc pour daal mën a yeggale mercatom comme Cop Meniers ou bien même mais xaw na kaat moom Juve pour génne yenn ci ay joueurs.